Cheikh Mouhamadou Lamine ku bàyyi xel ak njabootam la ci lépp rawatina nag ci samay nopp doomi boppam yi te lii may bëgg leeral wal tuslihan xaali wa xaali waladi bi xurmatil fajri wa siril baladi Cheikh Mouhamadou Lamine dañu suñ borom na nga yëwénal sama mbir ak sama mbiri doom te ñaan gi كدرجه سوره الفجري اك سكرم سوره البلد شيخ محمد لامين رينا لوفي جاك اك فرلوم باتاي نينا هب لي ما احبه من يومي وقبله وبعده في قومي شيخ محمد لامين دالي سوني بروم ماغ لاي نيان غا ماي ما ليما بغي سي سما تاي اك لا نيك سما تاي اك ليما بغي سي سما غناو سي سما نيت sëriñ Bachiru ñi ngi ñaan suñ borom mu taxaw la te taxaw mbooleem ñi lay jàppale ci gën a yaatal liggéeyu Cheikh Mouhamadou Lamine loolu dañ ko doon ubbee rek ci noonu lay tàbbee ci liñ bëgg a leeral rawatina ci mbirum sëriñ Abdul Xaddim luñ gis ni jar naa leeral dinañ ko leeral ndéem soob na yàlla waaye duñ ko tënk ci benn tem sëriñ Abdul Xadim bu ñuy xamle gane àddina mi ngi gane addina ci Mbàkke Kajoor atum 1927 te mooy wamsasin ci nisfu muharram am na lu ñuy leeral foofu sëriñ Abdul Xadim moo mujjee feeñ ci sëti sëriñ Cheikh Ahmadou Bambay ci dunduk Cheikh Ahmadou Bamba ci zaahir ndax ñeenti fan la fi fekkanteeg Cheikh Ahmadou Bamba moo mujj ci ay sëtam naka noonu Serigne Modou Baara mu Cheikh Mouhamadou Lamine moo njëkk a feeñ ci ay sëtam loolu kéemaani Cheikh Mouhamadou Lamine waajuram bu góor ku ne xam na ni mooy Cheikh Mouhamadou Lamine mu Cheikh Ahmadou Bamba ci tënk شيخ محمد لبين مي واجرم موي كوخني رضيت عنه وهو عني راضي وقد حماني موجب الامر راضي معنى بين بي تيب تنك اكو ليرال شيخ محمد لامين داني لو يالا ديف اندنا لوما ديف اندنا سي تي مبولم لوي ورال تبر ارن ما سي فغال مكو تبر نيوم غاني غاني باخ ني سي سين واخين بونتو واخه لو ديمي نيكي راغ راغ خول لنجي يوبو waaye juróom bu jigéen buñ koy xamle mooy soxna Xadijatu Njaay bokk ci askan wu ñëpp xamee ngor ak mbaax waaye gisul woon lenn lu mooy jaay lépp jëndee ko ak taalibe kon ci jëfam rek lañ koy xamle ñi ngi ziyaar suñ maam Serigne Baara Njaay mi nga xam ni dafa bokk ci leeri soxna Xadi soxna Khady Ndiaye ku amoon wàccuwaay bu kawe la ci Cheikh Mouhamadou Lamine ci tënk rek ci samay nopp sheikh Mouhamadou Lamine egg na ci tuddee ko doomi boppam ngir ngërëm bu dee wàllu njàngum sëriñ Abdoul Khadim wax nañ ni Cheikh Mouhamadou Lamine moo ko dalal baa jàng na ci ku ñuy wax Serigne Mbaykan waaye sëriñ Modou Diarra Guèye ci la wattoo alquran Serigne Abdul Xadim ku amoon ab cër ci alxuraan rafetu mokkalam bari na kilifa yu ko seede ci yoon rawatina rafetu ay mbindam ndax bari na kaabil yu mbind njàngum xam-xamam cib tënk Serigne Habibu Mbàkke mi nga xam ni bari na ñu jaar ci moom ci njabootu Serigne bi ci Serigne Habibu moomu la jànge Serigne Abdul Xadim ku amoon ab xir la ci xam-xam joxoon na ko yitte bëggee ji woon ci fànn yu bari gannaaw am njàngam euh, sëriñ Abdul Xadim mi nekkoon ci magam sëriñ Abdul Aziz daan doxee doxin wu yéeme ci diggam ak sëriñ Abdul Aziz doxin woo xam ni doxinu taalibe la ak sëriñam donte ñoo bokk wayju sëriñ Abdul Aziz tegoon na sëriñ Abdul Xadim fu kawe ndax doyloo na ko ba jiitaloon ko ci léppam te gërëm na ko ngërëm lu daana wax ni Abdul Xadim fu ma ko gisee samam xel dal moom sëriñ Abdul Aziz ci noonu la daan dundeek sëriñ Abdul Aziz ci rafetal ba nim sampee daaraam samp ab dëkkam làq ak njabootam di leen yar yarub lislaam ngir suñ borom subhanahu wa taala dafa wax ci alquran yéen ñi nga xam ni gëm ngeen na ngeen fegal seen bopp sawara te fegal ko seeni ñoñ doxin wii nag moo doonoon doxinu sëriñ Abdul Xadim ci ñépp ñu ñëw ci leeral ay jikkoom sëriñ Abdul Xadim léppam dafa tënku woon ci ragal yàlla ragal gi mu ragaloon yàlla dafa jeexitaloon ci ay jëfam daan feeñ ci ay waxam feeñoon lool ci ay jikkoom rawatina ci ni daan jëflante ak nit ñi ndax daana bàyyee nit ñi li ñu am te lu mu am bëgg koo bokk ak nit ñi loolu taxoon ñépp bëgg ko te ay bokkam ñoo ci jiitu ndax lépp lu war ci diggante nit ki ak ay bokkam jooxee na ko ba kenn jëmu ko ci ay bokkam ay bokkam naw nañ ko lool sëñ Ahmed moom Serigne Baara ab taawam la ko tuddee Serigne Abdoul Aziz tuddee na ko doom Serigne Bachir Khoudia noonu Serigne Abdoul baar Baara ba ci Serigne Chidil Mukhtar Serigne Cheikh Matilay mi ñu ñaanal mu yàgg fi tëwér te lii ma lim ab tënk la rek sëriñ Abdou Khadim ni mu daan doxee ci waa kër sëriñ Baara noonu la daan doxee ci njabootu sëriñ Touba gépp te yemalewu ko ci yoonu murit waaye bari woon na ay wëllëre ci yani ci yeneen i tarixa jullit yépp la bokkoo woon dafa tënko woon ci wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu te mboolem ñi ko xamoon dañoo yéemu ci fullaam fulla ji it lu jar a leeral Serigne Abdul Xadim fullaam ak njub moo ko sababoon bim ñëwee Mbàkke Kajoor ñu wan ko Serigne Abdul Xadim Cheikh Mouhamadou Lamine ne ko kama la tuddee suñ boroom jëfe na ci coobareem waaye kii laa ko watte Cheikh Mouhamadul Fadal ne nu mu tudd mu ni ko al abdul xadim mu ne kii moom a gënal ngir tur lu may yéene woon ca kee rek dinaa ko def ci moom yi daje ci moom moo taxoon mu doon ku am yërmande ci jaam ñi bu sañoon ñëpp ci njub la na ndax ak njubay lépp ak njubadi du jur lu dul musiba rek te dara jëru ko ci àddina te poñet meeg xaalis bii nga xam ni day taxawaatu rek ci yéefar yeeg fu ne ku ci gorewul dana la def dana la def am naafiq ndax xaalis jikkoy naafiq la yor paaka ñaari bor la yayoon a tagg yayoon a ŋàññ ab jullit njub rekk ko jik am na ku ñuy wax abi amrin am ñu ni abi amrata sufyaan la ibn abdillahi saxafi radiallahu anhu maanaa xadis bi ci gën a leeral nee na dan yonent bi salallahu alayhi wa sallam dama bëgg nga wax ma ci lislaam loo xam ni duma ko laaj kenn ku dul yow yonent bi salallahu alayhi wa sallam lam ko wax gannaaw ngëm ak njub rek la rawaahu muslim kon ñi ngi yam foofu di sant ñëpp di baalu àq ñëpp di jégglu ci kilifa yi ak sëriñ sëriñ Abdul Xadim yi ak mbooleem njaboot gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu